lañ bëgg lan la Ahmed Aidara xam nga lan ngay doon dàngin bu mag di curpi curpi say tànk arke nga ñaaw sa xol taab yaag Mansour Mansour moom ni mu ne kokk noonu wow seen télé bi ne suraax fayat loolu moo leen metti du président Macky Sall sant leen yàlla réew mi Macky fi ne réew mi Macky mooy kii fi ne lii la yàlla dogal lii la ko sëñ Abdou waxoon ni ko ñaanal yow la yàlla teg sa lox réew mi ci sa loxo boo ñaanee yàlla nangu ko président Macky Sall ñaanal corona bi jóge fi te bàyyi défiant yi ne ci réew mi man xam naa ni fulla gi nga am ak fayda gaag ngor ga démb fii àddina bépp di gis encore ati yal na la yàlla cat son excellence yi yal na yàlla bàyyi sa xel mi te musal la ci noon yu mel ni ay dara doomi dangin